jërë ngeen jëf ki ñëpp yi déglu jamono ji di président Macky Sall l'observateur mi ngi ñuy wax ne dana wax ak waa réew mi tey ji woolu na waa RTS di télévision nationale woolu waa ITV woolu waa Seneweb ak waa Soleil national tey ci ngoon bu sept jotee ngir wax ak ñoom mu di wax jooj journal bi mi ngi ñuy wax ne ñi koy xaar bari ndax ci la ñuy kañ la war a organiser élection présidentielle réew mi est avant le 2 avril gi mandaam di jeex ca élection présidentielle ci réew mi ci date bu mu fas yéene jàpp fan yi di ñëw ñëwaat na ci yéene ju mu ngir ñu organiser ci réew mi ay élection yu dul boddi kenn ay élection yoo xam ne képp ku ci bëgg a bokk mën caa bokk te war caa bokk ñu bàyyi la nga bokk ci maanaam mi élection inclusive ba mu ci jógee moom jiitu mi l'observateur ne nañu ci la wëlbatiku ci ministre bi ñu dénk wàllu justice ci réew mi nekkoon na taxaw ci matérialiser matal li ñu tàmbali ci réew mi mu di ñu nekk ci kaso bi te ñu mën leen a démb ay mesures yu am solo jëmee ko ci organisation élection ak lu a dalal dënn yi ci politique tey ji ci ngoon journal bi nee nañu moom jiit réew mi dana séq waxtaan ak i média yu nekk ci réew mi ca média yooyu ñoom waa Soleil national nee nañu ca la bokk journal bés bi le journée ko ci bésub tey bi ca lay doon bu 19 heures jotee média Sénégal yi mu war séqal waxtaan moom président de la république journal bés bi le jour nee nañu ITV la RTS Soleil national ak Seneweb li mu wax démb ministre de la justice moo dina taxaw ci matérialiser pardon la république teg na jéego bu am solo jëm ci libération bu Ousmane Sonko Vox Populi gis ci ay mesures yu mu jël laata mu jël kàddu gi tey ji ci ngoon ngir war a wax ak askan wi Le Quotidien nañu président Macky wax na démb ne danañu jàpp data élection ci lu yàggatul dara waaye li mu bëgg moom jiit mi Quotidien nee nañu mooy organiser d'abord ab dialogue ak i concertation yu ñuy boole ñëpp ci jamono jooju somnalisé ko mi ngi ñuy xibaar ne ci biir mouvement national Macky Sall ñu di ko dëggal ci xëta mu njëkk ba mu jaral ko mu xëyee photo Ndeye Saly Diop Dieng ak bu Thérèse Faye yéenekaay bi teg ci bind ne féewaloo mi ngi waaj a am ci biir mouvement national des femmes APR defante baa ngi mel ne tulleeg male ci seen biir ndax ñii dañoo ànd ak président Macky bëgg ko gëm ko ña ca ñoom ne Amadou Ba la wax ñàkk déggoo gi am ci seen biir journal bi ne nañu moo waral ba Thérèse Faye ak ñi mu àndal ne fi mouvement national des femmes APR taxawal geneen kuréel gu ñu tuddee mouvement national des femmes APR Macky daanoo ven li waral coow li l'info ne nañu mooy ñi fipp génn nee nañu bu ñu dugalee ci groupe bi lu jëm ci Macky Sall Ndeye Saly Diop da koy Ba ne ci seen politique bi li waral ba mu jël dogal bu ni mel mi ngi koy leeral ci yéenekaay bi nee na mooy engagement bi mu am ci wàllu médiation ci dëndub Afrique bi moo tax mu gis ni li gën jamono ji mooy mu tëddee njaaxaanaay bañ a waneeti péetam ci politique u Sénégal rawatina ci jamono ji nga xam ne réew mi dafa nekk ci ay ñaaxo ñaaxo ay ñaaxo ñaaxo dëgg ko bëgg xam nu muy mel xoolil page 7 bu l'Observateur benn waay bu ñu naan o Sonko amoon ñeen fukket mu àndoon akub gelam dem ci benn auberge bu nekk Ngor jataay ba waa ji di o Sonko am crise cardiaque ba jaare fa faatu